mbokk yi waaye Serigne Aliou mu maam Serigne Bay na asalaamaaleykum teel ma teel ma as na ñu ngi nuyu xalifa bi. di nuyu imaam. di nuyu imaam. di nuyu kilifaay dëkk bi yëpp. di nuyu kilifaay dëkk bi yëpp. ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. di tàggoog suñ mbokk. di tàggoog suñu mbokk. moo xam ne. moo xam ne. suñu ànd moom. suñu ànd beeg moom. ëpp na juróom fukki ëpp na juróom fukki ñu xam ko. ñu xam ko. muy jullit. muy jullit xàqan. jàng alquran mokkal ko. jàng alquran. mokkal ko dëkk di ko jàng. ànd ak ñu baax ñi. ànd ak ñu baax yar ko. ñu baax yar ko. ci diggante Seydi Aliou. ci diggante Baye Seydi Aliou Cissé radiyallahu ak Baye. ak ak Fatoumata Zahra. ak yaa Fatoumata Zahra radiyallahu mu ñëw suñ kër. radiyallahu anha. Baye dugal ko kër Baye Mbaye. ne Baye dugal ko ci kër maam Serigne Mbaye. jox ko Cheikh Tidiane. jox ko Cheikh Tidiane. suñ mag. ne seen mag. mu ne ak moom nekk bu rafet. mu ne ak moom nekk bu rafet. ñu xam day Cissé muy. ñu xam Seyda Adja Ndeye Cissé muy. koo xam ne. nit koo xam ne. ku mën a muñ la. ku mën a muñ la. ku bëgg lu baax la. nit ku bëgg lu baax la ku mën a yar ay doomam ci lu baax. nit ku mën a yar ay doomam ci lu baax. ku koo xam ne. koo xam ne. guddeem ak bëccëgam yëpp. guddeem ak bëccëgam yëpp. ci ut lu baax la ko def. ci ut lu baax la ko def. def ci kanamam. def ci kanamam. ay nit ñu mat. ay nit ñu mag. mu di leen roy. mu di leen roy ci. Cheikh Tidiane mu Baye Mbaye. Cheikh Tidiane mu maam Serigne man mii la mujj a waxaat ci àddina. ne moom mii la mujj a waxaat ci àddina. wax ma ci njabootam. wax ko ci njabootam. Ndey Cissé. ne Seyda Adja Ndey Cissé. doomam yi mokkal nañ alxuraan. doomam yi mokkal nañ alxuraan. ci fadlum ci góorgóorlum. ci góorgóorlum. doomam yi jàng nañ xam-xam. doomam yi jàng nañ alquran jàng nañ xam-xam. ci góorgóorlu. ci farloom. kër ga danay ñàkk lekk. kër ga danay ñàkk lekk. mu tekki lamam jaay ko. mu tekki lamam mbaay takkaayam jaay. dem euh, dundale ko nit ñi ci kër ga. ngir dem dundalee ko nit ñi ci kër ga. nekk na Qahira. nekk na Qahira. ak Cheikh Ahmad Tidiane. ak Cheikh Ahmad Tidiane. mbir mi jafe. mbir mi jafe. mu ne alaaji mu Seynabu mu ne alaaji Mohamad Seynabu nañ dem ma jaay sama ceen yeeg sama takkaay ñu dundalee ko waa kër gi nañ dem ma jaay sama ceen yeg sama takkaay yi ngir ñu dundalee ko waa kër gi ba nee di doom ku baax doom ju baax la bam nekkee di doom doom ju baax la bam nekkee di doom doom ju baax la xam nekkee di soxna soxna su baax la ba mu nekkee it di su baax la xam ngeen bam nekkee di yaay yaay ju baax la bam nekkee di yaay yaay ju baax la ñu mën a xuufee. ba mu nekkee di mbokk mbokk mu baax la. ba mu nekkee it di mbokk mbokk mu baax la it. ku bëgg ay mbokkam. di nit ku bëggoon ay mbokkam. koo xam ne. di nit koo xam ne. foo toog ak moom rek. foo toog moom rek. da gis ne hittewoo na jaami yàlla yi. da xam naa ko bu baax. ne xam na ko bu ndax jëflante nañ jëflante nañ ci lu nekk. ndax ci lu nekk. te lépp a mbaax. te léppam baax rafet. yal na ko yàlla yërëm. yal na ko yàlla yërëm yaa rabbi. yal na ko yàlla gërëm. yal na ko yàlla gërëm yaa rabbi. imaam ñu ngi lay jaale. imaam Baye Serigne Aliou na ñu ngi lay jaale ak ñun ñëpp. kër Baye Mbaye yëpp mi ngi lay ñu leen di jaale. kër maam Serigne Mbaye yëpp ñu ngi lay jaale. sëñ Mahi. sëñ Mahi. dañ koo gisutoon. koo gisutoon. waaye mu ne mu ngi ñëw. waaye ñu ne mu ci yoon di ñëw. ñëpp a leen di jaale. ñëpp leen di jaale. di ñaan yàlla. di yàlla. yàlla na ko yàlla gërëm. yàlla na ko yàlla gërëm yaa rabbi. wasalaamaaleykum wa barakaatu. mooy. mu jël ko jaale bi ñëpp. te koy seedeel mooy. imaam Cheikh moom moo samedi. ne imaam Cheikh moo ko oo samedi. ne ma demal Tunisie. ne ko demal Tunisie. jëli Ndeye Cissé. jëli Seyda Adja Ndeye Cissé. dafa faatu. dafa faatu. ma def yitte ci guddi mu def yitteem ci guddi ba am billet. ba am billet. dem fekk fa xalil doomam. dem fekk fa xalil doomam. bañ demee place jafe lool. bañ demee place jafe lool. waaye yàlla dimbale ñu mu amal ñetti doomam yi place ñu dem ñëw ci Tunisair. waaye yàlla dimbale ko mu amal ñetti doomam yi ñu ñëw ci Tunisair. ca suba ga ma am place ma xalil. ca suba ga mu am place moo xalil. président Diomaye dañ ko gërëm ci yéeneem. président Diomaye danañ ko gërëm ci yéenam gum naroon def ndax joxoon na ndigal ambassadeur bi ne na indi koor bi ndax joxoon na ndigal ambassadeur bi ne na indi koor bi bi ma ko laajee ma xam ne suñ fay euh, affaire état gaawut bi mu ko laajee mu xam ne affaire état gaawut ma oo imam Sian ne ko koor bii su fekkee indi yónnee woo xaalis mën nañoo toog ba julli ndax place yombul mu oo imam Sian ne ko koor bii bu fekkee ne yónnee woo xaalis mën nañoo toog julli. samedi ak tey. diggante samedi ak tey. yónnee na ma huit millions yu manqué cent mille francs. yónnee na ko huit millions yu manqué cent lam jiitu woon na mu def ko ca xaw ma ko. lam jiitu woon nag mu def ko ca xamut ko. xalil wax na ma ne ma xalil doomam. na xalil doomam. wax na ma ne Cheikh Maye moom wax na ko na ko Cheikh Mahi moom dimbale na leen lool ndax kilinig bi mu faatoo mooy ñetteelu clinique am. dimbale na leen lool ndax clinique bi mu faatoo mooy ñetteelu clinique am. xam ne ñoom ñëpp def nañ si. kon nga xam ne ñoom ñëpp def nañ ci. su fekkoon na xaalis rek mooy yëkkati ndey. su fekkoon na xaalis rek mooy tere Adja dem. bon du tëdd fii. kon wallaahi fii du fi yegg si. waaye na yàlla moom moom li jël. waaye yàlla moom li mu jël. moom yàlla moom it lim fi bàyyi. moo tax na may seedeel xalifa bi ndax mooy njoboote ñëpp. moo tax muy seedeel xalifa bi jëf ci rafet jii. ay mbokkam def ko moo njaboote ñëpp. lii rek laa doon seede. lii la doon seede. man nag maa ngi koy sant di ko gërëm. ne moom nag mu ngi koy sant di ko gërëm. ndax mënoon naa yónni keneen. ndax mënoon naa yónni keneen. waaye yi wuure yi mu yéene ma. waaye yi wuure woowu mu xëy na ko ba tax mu yónni ko. loolu maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm. di ko ci maa ngi koy jaaree famil bi yëpp. ne kon mu koy jaaree famille bi yëpp. bañ demee nag ba ca bañ ko suturaal. ne bañ demee ba ca bañ koy sang. am na ay kalaama yu si xew loolu doomam moo koy wax. ne am na ay. karaama yi ñu gis waaye doomam moo koy wax. karaama lii rek laa doon seedeel mbooloo mi. nee na rek la doon seedeel mbooloo dana am dara. ndax nit ki day dana am dara. te du mën a dimbale mbokkam. te du mën dimbale mbokkam. ba nag xalifa bi na ñaanal ñii yàlla. kon nag xalifa ndax li am ñu ngi ciy dimbale jàmbur yi. ndax lañ ci li ñu am ñu ngi dimbale jaami yàlla la seen i yàlla yëpp. dafa wax nag seen mbokk. waaw lii yow luñ doon la. waaye jëf ci rafet jii dañ am njëriñ lu lii. dafa am dafa bu ñuy wax mbuus. mbuus mbuus mooy bàyyi ndey mbuub. ne dafa am géwél. bu ñuy wax mbuus. mbuus. su paa ñëwaan su paa ñamaan jooson wax ne sëriñ Aliou daf daan wax sëriñ Aliou ne mbayam dof la yor ne mbayam dof la xam nga dof suy bay xàmmewul gàncax gee ñax gi xam nga dof buy bay xàmmewul gàncax gee ñax maanaam suy joxe mooy joxe li muy joxe xamul ku mu war a jox ku mu joxe day na wut ki war a jox ba ne ñii noonu lay mel ñii day noona lañ mel te ci nañ leen ñaanal yàlla ñu gudd fan dañ leen di ñaanal yàlla ñu gudd fan ndax gudd fan ci ñoom sagu pays bi la ndax gudd fan ci ñoom sagu pays bi sagu Sénégal yëpp la sutura julit yi la bon na loolu rek laa doon wax <laughs> jërë ngeen jëf na kon loolu la doon wax jërë te kilifa yi te kilifa yi bu fi teewee rek bu ñu fi teewee rek Baay moo teew Baay moo teew radiyallahu anhu waaye kii euh, dafa am xaasiya waaye kii dafa am xaasiya bokk na ñeenti yoon bokk na ñeenti yoon suñ doom la ndax sëriñ Aliou Cissé suñ mag la ne seen doom la ndax Baye Seydi Aliou Cissé radiyallahu anhu seen mag la suñ jarbaat la ne seen jarbaat la it ndax Seyda Zahra ndax Seyda Zahra ba tey suñ mag la ba seen mag la. moom laa tuddee rajo Jafala bi Seyda Zahra Ibrahima Niass. moom la tuddee tuddee rajo Jafala bi di Seyda Fatimata Zahra Ibrahima Niass. ñetteel ba suñ ndey doom la. na ñetteel ba seen ndey doom la. man mii maa ñëw wax ak yaayam. ne moom mii moo ñëw wax ak yaayam. pour ñu muur ko mu dem kër Baye Mbaye. pour ñu muur ko mu dem kër maam bay Mbaye. waaw yaayam ne waaw d'accord. yaayam ne ko waaw d'accord. waaye nag. waaye nag. nañ ko nañ ko xeeb. nañ ko xeeb. man mii maa jënd bagaas bi. moom mii moo jënd bagage yiñ ko xebee. waaw booba sax fekk na euh, yàgg na ba am na doom yu mag. ne booba fekk na yàgg na ba am na njaboot gu mag. ñu indil ko suñu rakk Cheikh Tidiane. ñu indil ko seen rakk. di Cheikh Tidiane. bu mujj bi nag. bu mujj bi nag. te loolu ñu bëri xamuñ ko. ne te loolu ñu bëri xamuñu ko. moom dama maaseeg imaam Hassan. ne moom dafa maaseeg imaam Hassan. léegi nag Seyda Zahara. léegi nag Seyda Zahara. di ñu jël ñun ñaar. di leen jël ñoom ñaar. kom ndey ji seex. kom ndey ji seex. bañ naan ko sa seex yi niroowuñ. bañ naan ko sa seex nuroowul euh, ndax kii dafa xees kii ñuul. ndax kii dafa mu ne bàyyi leen maak sama doom yi. mu ne bàyyi leen maak sama doom yi. kon moom it doomi ndey la. kon moom it doomi ndey la. boole koog li ci nekk lépp. boole koog li ci nekk lépp. ñun xam nañ ko. ñun xam nañ ko. mu nekk jigéen joo xam ne. mu nekk nag di jigéen joo xam ne. dafa mel ni copier yaayam. dafa mel ni copier yaayam. xamul caaxaan. xamul caaxaan. xamul mbóosóor. xamul kaf. xamul kaf. jidd rek la xam. dëgg jidd jidd. jidd rek la waaw lu lu lu de dégg déggaaral. lu ne dégg déggaaral. doo ko dégg ci dara lu soof. moo tax biñ ko yëgee ci saasi. moo tax bi ko yëgee ci saasi. ma daal di wax ñaaram ñaari rakkam yi fi ne. mu dal di wax ak ñaari rakkam yi ne. muy imaam Cheikh. muy imaam Cheikh. ak imaam Mahi. ak imaam Mahi. kon nag. kon nag. ñu ngi koy jaale suñu bopp. ñu ngi koy jaale suñu bop di ko jaale mbokk yëpp. di ko jaale mbokk yëpp. ci wàllu deret. ci wàllu deret. <coughs> waaye ñu ngi koy jaale mboolem Faydal yi waaye ñu ngi koy jaale mboolem faydal Ibrahima. ña nekk Makka ak. ña nekk Makka ña nekk Medina ak. ña nekk Medina ña nekk Soudan ak. ña nekk Soudan ña nekk Tchad ak. ña nekk Tchad ña nekk Cameroun ak. ña nekk Cameroun ak ña nekk Nigéria ak. ña nekk Nigéria ak. ña nekk Niger ña nekk Mauritanie ña nekk Mauritanie ña nekk Ghana ak nekk Ghana ña nekk Sierra Leone ak ña nekk Sierra Leone ña nekk Côte d'Ivoire ak ña nekk Côte d'Ivoire ñi nekk Sénégal ak ñi nekk ndax ñun ñëpp ñoo moom ñoo ko bokk ndax ñun ñëpp ñoo moom ñoo ko bokk waaw ndax ñun ndax ñun a ah, Baye daal Baye daal radiyallahu anhu xeew nañu xeew nañu te duñ fecceeku ba mukk waaw xeew nañu ci gétt ak sëñ xeew nañu ci gétt ak Seydi Aliou Cissé radiyallahu anhu waaw ah, ndax moo wax ne. ndax moo wax ne. bindu ko bindu ko it. bindu ko. ne képp kuy sama doom. ne képp kuy sama doom. sëriñ Aliou mooy sa sëriñ. sëriñ Aliou mooy sa sëriñ. kon baay moom. kon baay moom. foofu la ñu xeew. foofu la ñu xeew te duñ fecceeku. waaw te nag mën na lu ne. te xar nag mën na lu ne. ba mu des. ba mu des. tekki buum gañ ko takke ñu tënku ko ba pare mu tekkeeku. waaw ca buum ngañu ko takkee. waaw ndaw ndaw ndaw ndaw buum gu neex. ndaw buum gu neex. ndax day ndaw ker gu neex. ndaw ker gu neex. ndaw euh, euh, euh, maanaam ngooñ mu neex. ndaw ngooñ mu neex. Cheikh Mahi Ibrahim. Cheikh Mahi Ibrahim. ku la xool. kula xol te jus ci yow bay ñas te gisut ci yow bay ñas fa gumba fa gumbo te do tut gis ba aduna du tukki nak gumba xol dafa gumba gumba xol ndax yow bay ñas ndax yow bay ñas bay yow la dar bay yow la dar ma sha allah jëmbam jaak jëmbam jaak jëfite jëfina waak jëfina waak yëkëti ko mu yëkëti ko yëkëte ko gi dignité bi ba pare mu mu suufeel boppam. ak kaddu gi. ba pare nag suufeel boppam. loolu yëpp mi ngi ci yow. loolu yëpp mu ci yow. ñun dañuy namm bàyyi guddeeg bëccëg. ñun bañuy namm bàyyi guddeeg bëccëg. waaye buñ la gisee. waaye buñ la gisee. nammeel xamatut. nammeel xamatut. ndax bàyyee ngi. ndax bàyyee ngi nii ñu. jaxas yaay baay. yaay baay. bu la neexee yaay yow mii yaay baay. bu la naqadee yaay baay. bu la naqadee it. yow mii yaay bàyyi. te xam nañ ne du la naqadi. te xam nañ ne du la naqadi. kon nag gàcce ngaalaama. kon gàcce ngaalaama. yokk nga pay bi. yokk nga pay bi tasaare nga faydu bi. tasaare nga faydu bi. Makka ak Medina. ci Makka ak Medina. ñi doon diingat sax. ñi doon diingat sax dugal nga leen ci biir. dugal nga leen ci biir xeew leen. ba dugal buur bi ak i doomam. ba dugal buur bi ak i doomam. kon nag jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati. ma gis ko muy jigéen jaamit. mu gis ko. muy jigéen ju dafa am loo xam ne daf ma ko defal du dafa ma ko lebal du ko fàtte mukk. moom ba mu ñëwee Kaayara. ne moom ba mu ñëwee Kaayara. fekk ñu fa. fekk ñu fa. dund fa ak ay weer. dafa bind leetar leetar baayam. leetar boobu. leetar booba. bi ma ñëwee vacances. ne bi mu sama baay daf koo génne ci bu sori ñëw wan na. ne baayam daf koo génne ci denc bu sori ñëw ko ko. lu tax. lu tax. lam ci gis moom. lam ca gis moom. nga xam ne ji moom la bëgg ci ay doomam. moom la bëgg ci ay doomam. moom la bëgg ci kum yar. moom la bëgg it ci képp ku mu yar. fekk ca fekk ca leetar ba ngeen lu màgg a màgg. fekk ca leetar ba. gënal lu màgg a màgg waaye leetar ba damay wax ne man moom. moo ko moom. ndax lam ca bind sama baay. ndax lam ca bind baay Seydi bokk na ca mu wax ko ne. bokk na ca mu wax ko ne. fekk nañ fii suñu mag. fekk nañ fii suñu mag ci xaayira. muy mag ju baax. muy mag ju baax. yoo xam ne taxawu na ay rakam comme mag ju baax nu mu xam ne taxawu na ay rakam comme mag ju baax. ni mu war a taxawoo ay rakam. sama baay bi mu ma ko wanee daf ma cee ñaanal. ne baayam bi mu ko ko wanee daf ko cee ñaanal. kon nag ñaan googu. kon nag ñaan googu. damay wane xaaj Aïcha Cissé damay wax ne Ndeye Cissé mi ñu doon mi ñuy jébal tey boromam. dafay wax ne Seyda Ndeye Cissé mi ñuy tey boromam. moo may ñaan googu ci sama baay. moo ko may ñaan googu ci baayam ndax ak loolu lu muy tekki. loolu lu muy tekki. mbokk mu baax. mbokk mu baax. mbokk mu bëgg lu baax. mbokk mu bëgg baax. mbokk xam ne ci baayam. bëgg ci baayam. bëggal na ko ay mbokkam lépp. bëggal ko ay duma fàtte mukk duma fàtte mu baax la ci ay doomam. ne mbokk mu baax la ci ay doomam. yaay ju baax la ci ay doomam. ne du ci ci ñu ñu ci ci ci lu baax. ci lu baax. lu ci lu ci doom ju baax. ju xam waajur yu baax yu mel ni Serigne Aliou ak Seydou Fatma Zahra. ju xam dëgg-dëgg ñu ko koy yaakaaral moom. nee dëgg-dëgg ñu ngi ko koy yaakaaral. ñu barke ci ak njabootam. ñu ngi yaakaaral barke ci ak njabootam. ñu ngi koy yaakaaral kawe ci ak njabootam. ñu ngi koy yaakaaral kawe ci ak la woon. ku ko xam. ku ko xam. da xam ne ku am yitte ci ay doomam. xam nañ nit ku am yitte ci ay doomam. te fonk sa njaboot. te fonk sa njaboot. jikko la ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa kon ñu ngi tàggoog mbokk mu baax. kon ñu ngi tàggoog tey mbokk mu baax. mënuñoo wax ci moom lépp. mënuñoo wax ci moom lépp. waaye suñu waxee na mbaax. waaye suñu waxee na mbaax. ak lépp lu mu làmboo. ak lépp lu mu lamboo. ñu ngi ko yaakaar ñu ngi ko doon gis ci moom. ñu ngi ko koy yaakaaral ñu ngi ko doon gisit ci moom. bëgg na ay mbokkam. bëgg na ay mbokkam. bëgg na ak njabootam. bëgg na ak njabootam. bëgg na lu kawe. bëgg na it lu kawe. te bëggal ko ñëpp yi tamit. te bëggal ko ñëpp yi tamit. ñu ngi ko yaakaaral loolu. ñu ngi ko yaakaaral loolu. ñu ngi ko yaakaar yàlla wane la ko maamam. di ko yaakaar yàlla wane la ko maamam. sëriñam. wane la ko sëriñam. Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu. Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu. ñu ngi ko yaakaar yàlla wanale ko ay waajuram. ñu ngi ko yaakaaral yàlla wanale ko ay waajuram. Seydi Aliou Cissé. Seydi Aliou Cissé radiyallahu anhu. Seydi Fatima Zahra. ak yaa Fatima Zahra. mbokk mu baax. mbokk mu baax la. bokkoon na ci tamit ci doomi Israël yi nga xam ne ji tari nañu alquran te nekk jigéen. bokkoon na ci tamit ci doomi Baye Seydi Aliou Cissé yi nga xam ne tari woon nañu alquran. te nekk di ay jigéen. te moom moo doon ñaareel bi sax. te moom moo doxoon sax ñaareel bi. ku góor woon la. ku góorgóorlu woon la. ku bëggoon tamit lu baax la. ku bëggoon tamit lu baax la. ku ko daan xeñtu la. ku ko daan ko daan ut la. ku daan xeñtu lu baax la fu mu toll. ku ko daan ut la it. ñu ngi koy yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla. lépp lu mu nekkoon. lépp lu mu nekkoon. ci lu baax. ci lu baax. yàlla am na lu ëpp loolu yal na ko yàlla wan lu ëpp loolu. yàlla am na lu ëpp loolu. yal na ko yàlla wan lu ëpp loolu yaa rabbi. ñu ngi koy jaaree suñu xalifa. ñu ngi koy jaaree suñu xalifa. xaadimul umma. xaadimul umma. cheikh Mouhamad Mahi cheikh Ibrahim. cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim. ñu ngi koy jaaree tamit suñu imaam. ñu ngi koy jaaree suñu imaam. imaam Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé. imaam Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé. ñu ngi koy jaaree suñu rakk. ñu ngi koy jaaree it ne rakkam. suñu porte parole. di suñu porte parole. Cheikh Mouhamad Mahi Cheikh Ibrahim. di Cheikh Mouhamadul Mahi. Cheikh Ibrahim di ko jaale waa kër ga yëpp. di ko jaale waa kër góor ak jigéen mag ak ndaw. góor ak jigéen mag ak ndaw. di ko jaale waa dëkk bi yëpp. di ko jaale waa dëkk bi yëpp. di ko jaale taalibe yëpp. di ko jaale yi taalibe yi barki démb rek. ne barki démb rek. ci fan yi paase. ci fan yi paase. maa ngi demoon. kër Cheikh Mouhamadul Makki Cheikh Ibrahim. ne mu ngi demoon kër Cheikh Mouhamadul Makki Cheikh Ibrahim. am daje bu fa xewoon. am daje bu fa xewoon. boo xam ne taalibe yi ñoo ko waroon defal. boo xam ne bii taalibe yi ñoo ko ko waroon a defal. ñoo ko ko doon defal. ñoo ko ko doon defal. taalibe bi tamit ñoo ma owoon pour ma ñëw bokk ci daje boobu noonu. taalibe yi ñoo ko owoon ngir mu ñëw bokk ci daje booba noonu. waaye li may bëgg a wax. waaye ne li muy bëgg a wax nag. ca jotaay ba. ca jotaay ba. am na ku fa doon àggale alquran. na ku fa doon àggale alquran. di sëtam. di sëtam. ndax moom moo jur baayam. ndax moom moo jur baayam. loolu. loolu. te ay teraanga yoo xam ne yii bëri na ci ay doomam. ci ay teraanga la yoo xam ne yii bëri na ci ay doomam. ñu toog ñëpp xam nañ am doom ci teral alquran la la ci yàlla di ñu toog ñëpp xam nañ am doom. muy tari alquran lan la la ci yàlla di defal. yàlla may na ko loolu te boobu mu ngi ci fanam yu mujj. yàlla may na ko loolu te booba mu ci ay fanam mujj. ndaxte boobaay léegi matu weer. ndax boobaak léegi matut weer. nga gis rek. nga gis rek. yàlla nga koy may yàlla nga koy may. yàlla nga koy may. ba ci mujj ak dundam ba ci fanam yu mujj. ba ci mujj ak dundam ba ci fanam yu mujj ay xéewal. teraanga yoo xam ne ji. teraanga yoo xam ne ji. bépp jullit. bépp jullit. ñaan na yàlla yàlla may ko loolu. ñaan na yàlla euh, ñu ngi jaale ñëpp. imam Mouhamad Cissé na mu ngi jaale ñëpp. mu ngi jaale dëkk bi. mu ngi jaale it waa dëkk bi yëpp. mu ngi jaale taalibe Baay fu ñu mën di nekk. mu ngi jaale it kullu taalibe Baay ak fu ñu mën di nekk. lu tax. moo tax. li tax. li tax. dañoo xam lu luñ manqué la tey. dañoo xam lu ñu manqué la tey nag. muy doom ju baax. muy doom ju baax. muy mbokk mu baax. muy mbokk mu baax. muy yaay ju baax. muy yaay ju baax. waaye sax ñun ma ñàkkuñ ko ndax mbaaxam yëpp dana fi des ba ilaa mi di incha waaye sax ñun ko naam ndax mbaaxam yëpp dana fi des ba ilaa yow mi diin. dëgg dëgg. dëgg dëgg. mbokk mu baax. mbokk mu baax la. ñu ngi ñaan yàlla. ñu ngi ñaan yàlla. ay baax baaxam yëpp yal na ko yàlla nangul. amiin ay baax baaxam yal na ko ko yàlla nangul yaa rabbi. te ful ko ci kam baaxam nga moom yàlla. te ful ko ci kam baaxam nga moom yàlla. ay rëcc rëccam. ay rëcc rëccam. yal na ko yàlla labal ci géej jéggalem ga. yal ko ci géej jéggalem ga. li ñu doon gis ci moom. boole li ñu daan gis ci moom. may yàlla la. mayu yàlla la. yàlla am na lu ko ëpp. yàlla am na lu ko ëpp. yal na ko yàlla sotti ci ay doomam ak i sëtam. yal na ko ko yàlla sotti ci ay doomam ak i sëtam tam topp ko it. ci barke Mawlana Cheikh Alhaji Ibrahima radiyallahu anhu. ci barke Mawlana Cheikh Alhaji Ibrahima radiyallahu anhu. barke Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane. ci barke Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. allahumma salli ala sayyidina. allahumma salli ala sayyidina Muhammad. bismillah. الحمد لله رب العالمين ني سنت يالله دي جولي جونتي صلى الله عليه وسلم بوكي شيخ خليل دي دومي سيدا اجان داي سيسه نانيغي سنت يالله دي جولي تي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم دي واخني سيني بروم موم موم رك مو هيو ñu sant ko ci lu neex ak ci lu naqari. ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. mu ne ñun ñëpp ñu àndoo wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. yàlla jangal suñ musiba bi te utalal ñu lu gën. yal nañu yàlla jangal suñ damm dam bi te yool ñu ci suñ musiba te utalal ñu lu gën li ñu ñàkk. Ehm, ñu ngi tàggatoo suñu waajur wu jigéen tey. na ñu ngi tàggatoo suñu waajur wu jigéen tey. di seede ci moom ne jullit dëgg xàqan la na mu ngi seede ci moom ne jullit xàqan la seede seede ci moom ne taalibe tijaan xàqan la mu ngi seede it ne taalibe Mawlana Cheikh la mu ngi seede it ne taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim dëgg la radiyallahu anhu jotaay bi nag na jotaay bi nag waru mu fee sax jël kàddu نور فيساجل كادو سما كليفة رك نيو في نك نا أي كليفة أم نيو في نك ما يجي جيتل تنيو بيسون خليفة نم يجي جيتل تنيو بيسون خليفة شيخ محمد الماهي إبراهيم ياس دي شيخ محمد الماهي إبراهيم ياس مكون نيو تكنا نيو نيو بولم جابوتي مولانا شيخ إبراهيم شلخوم نبيم كون نيو تكنا نيو هك بولم جابوتي شيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه شلخوم نيو إمام Euh, imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé. na ñu ngi nuyu imaam Cheikh Tidiane Seyd Ali Cissé. ak Cheikh imaam Mouhamed Cissé. di nuyu imaam Mouhamed Cissé. ak Cheikh Mouhamadul Mahi. di nuyu porte parole Cheikh Mouhamadul Mahi. Ali Cissé. al Seyd Ali Cissé di seede rek ci kanam mbooloo mi loo xam ne. di seede rek ci kanami mbooloo mi baat yoo xam ne. suñ borom lañ koy seedeel. suñ borom. lañu koy seedeel. sama waajur wii ba mu tëddagut. ne imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé mi ak Cheikh Mahi. imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé mi ak Cheikh Mahi. bañaluñ ko dara. bañaluñ ko dara. te huutu nañ ñu ci moom. te huutu nañ ci moom. ci mboolem anam yi. ci mboolem anam yi. ba mu tëddee it. ba mu tëddee it. lépp lu ci war. lépp loo xam na lu ci war la. taxaw nañ ci ba mat sëkk. taxaw nañ ci ba mat sëkk. imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé. imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé. moom ma njëkk o ne moo ko njëkk a oo. ne ma lépp loo jàpp na ko bàyyi nga ñib si. ne ko lépp loo jàpp na ko bàyyi te ñib si. ñëw ànd ak sa yaay. ñëw ànd ak sa yaay. nga dem seeti docteur. nga dem seeti docteur. lim defoon noonu nag daf maa ene lu baax rek. lim defee woon loolu rek. la ko waral mooy daf ko xëy ne lu baax rek. ndax mënoon naa tànn ñeneen. ndax mënoon naa tànn ñeneen. te boobaa danañ def lu raw li ma mën a def man. te bu boobaa danañ def lu raw li mu mën a def moom. waaye yéene na ma liggéeyal sama waajur ci ay waxtoom yu mujj. waaye yéene na ko mu liggéeyal ay waajuram ci waxtoom yi mujj. bañ demee foofu tamit. ba ñu demee foofa tamit. wala balaa ñoo dem sax lépp lu aju ci yoon bi. wala bala ñooy dem ca tukki ma lu aju ci yoon wi. jàppale nañu ci. jàppale na leen ci. loo xam ne. loo xam ne. foogoon nañ ne buñ demee danañu mën a dimbale. foogoon na ne buñ demee dana leen man a dimbale. ndax loolu la ñu docteur bi laajoon. ndax loolu la ñu docteur bi laajoon. mu yëkkati ko teg ko suñu loxo. mu yëkkati som bu ma sëkk. teg ko ci seen loxo. waaye ku ne xam ne faji bitim réew. waaye ku ne xam na ne faj bitim réew. prédiction la rek kenn mënta xam exact lan la lay koos. prédiction la rek. kenn mënta xam exact. ñaata lay war a ñaata la xayma gi di war a tollool. waaye bañ demee. waaye bañ demee. yàlla dimbale nañu. yàlla dimbale na leen. dem nañ ci lu tollook ñett ba ñeenti clinique. dem nañ ci lu tolloog ñett ba ñeenti clinique. loolu yëpp dañ ko doon def ngir sabablu rek. loolu yëpp dañ ko doon def ngir sabab lu rek. waaye yàlla moom kenn mënta xëccoog moom. waaye yàlla moom kenn mënta xëccoog moom. li ci aju woon ci wàllu ndimbal yëpp. li ci aju woon ci wàllu ndimbal yëpp. imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé ak Cheikh Mahi def ko. imaam Cheikh Tidiane Seydou Ali Cissé ak Cheikh Mouhamadul Mahi Seydou Ali Cissé radiyallahu anhu def nañu ko. ba mu mot demoon naa ba yërëm leen sax ci clinique bi. na demoon na sax ba yërëm leen ci clinique bi. ma ooyee imaam mu ne ma yóbbul yóbbu yóbbu leen ko fépp fu ngeen yaakaar ne rek. bi mu ooyee imaam mu ne ko leen ko. fépp fu ngeen yaakaar ne danañ ci man dara rek ngeen yóbbu ko fa. fépp fu ngeen yaakaar ne danañ ci man dara rek. génn yóbbu ko. ma wax ko Cheikh Mahi mu wax ma loolu ne ma bul kalaat sax li nga ci war a def. mu wax ko Cheikh Mahi mu ne ko bul kalaat sax li ci war a def loolu tabe. maa ngi leen di gërëm di leen sant ci sama turi mboole mi rak. mu leen di gërëm di leen di sant ci mbooleem turi ay rakam. di wax ne ñu ngi gërëm tamit rak yi ma àndoon nag muy Fatou ak Mariam son nañ ci seen yaay lool. di wax nag. ngërmaande ci tuuri rakkam yi mu handaloon muy faatu ak mariama noon nañ lool ci seen yaay di gërëm samay rakk yu góor muy Baye Mbaye ak Seydi ak seen rakk ñoom ñëpp taxaw nañ suñu wet di gërëm ay rakkam muy Baye Mbaye ak Seydi ñoom ñëpp taxawoon nañ ci se ci wetam ak mbooleem suñ mbokk yi waa kër Oumy Cissé waa kër Seyda Nafi Cissé waa kër Imam Cheikh waa kër Imam Hassan ñoom ñëpp taxaw nañ suñu wet jàppale nii ak mbooleem ay rakkam واكر أمي السيدة أمي سيسي واكر السيدة أمي سيسي واكر إمام حسن واكر إمام حسن واكر إمام شيخ واكر إمام شيخ واكر شيخ ماهي واكر شيخ ماهي أقسم واكر شيخ سرين باي نيوم نيب جابلين نيو أك واكر مام شيخ سرين باي نيب تهوين نكو جابلين نكو ونك بعما غدل نخ كادوجي دمائي بني مغدل تكلم كليفي نبغو تغدل بكو يبودال نيجي تون mandarga bu guddal ci kanami kilifa yi mandarga yi nga xam ne doy na yaakaar. mandarga yi nga xam ne doy na yaakaar. bañ demee ba war koo sang. bañ demee ba war koo sang. Mm, samedi la génn àddina. ne samedi la génn àddina. talaata ñu utal sama rakk yi avion ñoom ñu ñib si. talaata ñu utal ay rakkam avion ngir ñu ñib si. Zara mu papa As ñëw indil ñu yàq nga ne dafa ñëw pour yàkkal ñu man ak uh, oncle Cheikh Diosong. Zara mu papa As. nga xam ne Fatima Zara moo ko yar. ne daf ko bëgg a yàkkal. moom ak nijaayam. Cheikh Joson Cheikh Joson. tombeek kam compagnie bi war a ñëw pour sang ko ñëw. tombeek compagnie bi war a ñëw pour sang ki xag si. mu ne ñu ndaw si nañu ndax amu leen fii ku bokk ak moom ci ci ci deret ci jigéen koo xam ne dana ma mën a jàppale. ndaw si ne leen ndax amu leen fii ku bokk moom ci deret ci jigéen koo xam ne dana ma mën a jàppale. ma ne ko Zahra mii yàllaa ko ci boole. mu ne ko Zahra mii day ko ci boole. ndax mbokkam la ndax sëti Seydi Ali Cissé la di sëti Maolana Cheikh Ibrahim. ndax mbokkam la sëti Seydi Ali Cissé la di sëti Maolana Cheikh Ibrahim. radiyallahu anhu ñu tuddee ko yaa faati mu yar ko. ñu tuddee ko yaa faati mu yar ko. teg kon moom moo tànnal boppam koo xam ne dana ñëw ci mbokkam yi pour seede ko. kon moom moo tànnal boppam. koo xam ne dana ñëw ci mbokkam yi pour seede ko. bañ demee ba identifier corps bi. bañ demee ba identifier koor bi. man damaa génn ndax sama xol mayut ma ma taxaw foofu. ne moom dafa génn ndax xolam mayut ko mu taxaw foofa. Saara wax na ne moom ak naar bi ko doon sang. Saara wax na ne moom ak naar bi ko doon sang. bañ ko muree. ba ñu ko muree dañoo fekk ñaari baaraamam yi juróomi baaraam yëpp mu ngi ko bank benn baaraam yi seddam bi mu ngi ko tàllal dañoo fekk juróomi baaraam ñeenti baaraamam yi yëpp mu ngi ko bank juróomeeli baaraam bi joxoñ bi mu ngi ko talal muy baaraam bi seede bi di ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu rasulullah di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te loolu bu amee lu muy tegtale loolu mandarga ne julit la woon xaq te loolu bu amee lu muy tegtale mooy wane ne mandarga julit la xaqan sati Abdoulaye ibn Rabbani min mu ngi foofu ci Tunisie. sati Abdoulaye ibn Rabbani mu nga foofa ca Tunisie. di jàngale Alquran. di jàngale Alquran. te Adja Ndeye génne àddina. bi Adja Ndeye génnee àddina dafa wax ne moom géntoon na gént goo xam ne ci koor gi ci fan yu mujj yi dafa wax ne moom géntoon na gént goo xam ne ci koor gi ci fan yu mujj yi xamutoon gént gi lu muy firi xamutoon gént gi lu muy firi ndax ne moom mos ta gis bàyyi ci dundam ndax mu ne moom mos ta gis bàyyi ci dundam waaye ci koor gi dafa gént bàyyi ci ci Medinatu Nasr fii hôpital bi Adja Ndeye génnee àddina waaye ci koor gi ne dafa gént bàyyi ci Medinatu Nasr ci fi ba fi Seyda Ali fi fi uh, uh, Adja Ndeye génnee ci hôpital bi Adja Ndeye génnee. àddina bàyyi bàyyi ko damaa ñëw pour teeru si gan. bàyyi na ko damaa ñëw pour teeru si gan. mu ne moom bu xamutoon li bàyyi di wax lan la. mu ne moom booba xamutoon li bàyyi di wax lan la. waaye bi Adja génne génnee foofu mu ne dina yar ci xolam. waaye bi Adja Ndeye génnee la firi gént gi. loola na yar ci xolam. mu xam ne lii la ko bàyyi doon wax. mu xam ne lii la ko bàyyi doon wax. ci gént gi ñu ngi sant yàlla bu baax di gàttal suñu kàddu foofu. ñu ngi sant yàlla bu baax di gàttal suñu kàddu foofu. yàlla tànnal na ko bés. yàlla tànnal na ko bés. tànnal na ko waxtu. tànnal na ko waxtu. tànnal na ko weer. tànnal na ko weer. ndax ci zul hijja bii ci la ko jël. ndax ci jour hijja bii ci la ko jël. muy fukki fan yi gën ci at mi. muy fukki fan yi gën ci at mi. jël ko samedi. jël ko samedi. bés bi Maulana Cheikh Ibrahim génnoon àddina. bés bi Maulana Cheikh Ibrahim génnoon àddina mu tolloog 8 of June ci yoon bés bi nga xam ne ci calendrier yonent Yàlla Muhammad salaa sallam ci la génnoon àddina. mu tolloog. 8 8 juin 8 juin. ci la yonent Yàlla Muhammad salaa sallam génnoon àddina ci calendrier tubaab yi nga xam ne ci calendrier tubaab yi. wax nañ moom la marqué ne ci la yonent Yàlla Muhammad. صلى الله عليه وسلم جن عدنا لول يب أي ياكار يلنا يلا دقل ياكار يلا يرم تيال نكو يلا خرال يلا نكو يلا يرم تيال نكو يلا خرال جنا نعى قتل سن كادو فوفو نعى قتل سن كادو فوفو جعلوا مبلو ميد جعلوا كليفي بنا نقول إلا ما يرتجى سبحان سبحان سبحان الله أن يستقبل هذه الرحلة إليه

doom bu mat doomu njëriñ ci diine bu mat nekk bu eh, eh, yiw ci mbaa ci kawe lépp loo xam ne lu defar doomu demee di fekk ne benn jikko la ci jikko eh, kii ñu tàggoo bi tey yàlla na ko yàlla teeru ci ngëneelam ak baaxam ak yërmandeem te yàlla na ko yëkkati ca baqaama maamam yi maqaamu bàyyam yi maqaamu sëriñam yi ko yàlla defal dem na bàyyi nañu gannaawam yéetaay bàyyi nañu gannaawam cheikh min al xusni dana ci jàppale bàyyi nañ ci jàppale bàyyi nañu itam ne ko effacé ndax daf fi des bi awlaadiya xam na ay doomam xam na ci ko xam ne suma xarit dañu tàggoo man

mën nañ fàgg ci mbaax yàlla yàlla bind leen loolu oh, oh, Ndeye Cissé mii ñuy tàggoo tey doomu Zara doomu Seyda Aliou Cissé euh, ci ci usulam du duñ yéemu ci moom bu baaxee nii parce que loolu rek la xam xamut leneen loolu loolu baax la xam ba pare xam ko ba pare nangu ko nangu ko ba pare nangu koo jëfee loolu dëgg-dëgg loolu yëpp ne xam ne mayu yàlla la ak teralu yàlla jaamam la boo xam na yàlla teral na ko teral leen ko alxuraan teral leen ko ay doom yu kawe teral leen ko ay wajjur waaye teral leen ko bés bii nga xam ne itam dëgg-dëgg li teew tey ci bés bi pour fekkee gunge ko kenn xamul ñu mu toll loolu ci taranga yàlla la taranga dina nëbbu taranga dina feeñ waaye taranga yi feeñ itam moom la ñuy tegtalee ne taranga bii bu nëbbu bi itam ndax mbaax rek la yiw rek la kawe rek la yal na yàlla def loolu ci mbooleem aju na ci euh, moom yal na ko yàlla defal loolu ci njabootam yal na ko yàlla def itam ci mbooleem taalibe moo koy jaale ñëpp ñu koy jaale président Diomaye eh, dégg nañ taxawaayam ñu ngi koy rafetlu ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy jaale itam ne benn citoyen citoyen Sénégal eh, bu bu bu am njëriñ bu tekki bu jàngale alxuraan bu jàngale xam-xam bu jàngale jikko yu kawe bu jàngale mbaax moom la Sénégal ñekk tey bon nak ñu ngi président de la république ñu ngi itam son premier ministre ne euh, s'en concitoyen dem na tay té concitoyen bo xamné jar nako ndax xam na né bu ñu jot sax ñom dina ñëw gungé ko ndax citoyen bu rek wut ci citoyen bu xam war def citoyen bu xam lu baax diko wut citoyen bu xam Nous diko wut xam citoyen bu yëg bu am yëg ci réewam citoyen boobu la ut ci ñoom te benn ngi nii ñu ngi tàggoog moom bon nag seen yi e, cër mooy ñu jaare leen seen doom bi nga xam ne mu ngi dem jaare mbooleem taalibe yëpp comme ni ko Mouhamad Cissé defee e, fu ñu mënti nekk ak mboolem jullit ñëpp itam ndax benn jullit bu manqué ci jullit ñi la bon jullit ñëpp ko ñàkk yal na yàlla wuutu ko ci jullit ñi yal na yàlla wuutu ko ci xoli nit ñi yal na yàlla wuutu ko ci yitteem yim amoon ci def lu baax ci yëkkati lu baax yal na ko ci yàlla defal ko ko defal ko defal defal ko gannaawam ci ak ñëpp leen ko ndax itam ko ndax euh, euh, du nit koo xam ne dafa tëju nit ku ubbeeku woon daan dem di seeti ku nekk man seeti na ma ay yoon yoon yoon quelque fois daf may bett sax mu ñëw ma seet ndax man du ma nit ku ubbeeku waaye bu ñëwee dina ma waxtaanloo dina ko waxtaanal ko reeroo loolu yëpp lu koo xam ne xolam dafa ubbeeku nit koo xam ne esprit dafa ubbeeku nit koo xam ne dafa xam xam-xam lu muy jëriñ xam-xam lu muy jëriñ mooy mooy tabaxee sa société xam-xam lu mu jëriñ mooy loolu jokkoonteeg su société société jokkoo boo xam ne njëriñ lay indil sa société te kii ci loolu la nekkoon te boo boo jëflanteeg ñi nga xam ne ñoo jógee ci moom di nga xam ne dëgg-dëgg nit ku mën a tabax société la nit ku mën a tabax avenir la te avenir ci xale yi rek lañ ko yaakaar te ñoom ñëpp seen préparation seen dëgëraay seen xam woo nee na ñoom tamit àtt nañ lu nekk yal na yàlla dimbale leen ci loolu ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax euh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi wax ne ñu ngi jaale Médina yëpp ñu ngi wax ne ñu ngi jaale mboolee mbokk yi fi nekk yëpp ak ñi fi nekkut ndax comme ni ko mu si sa waxee ñëpp ko ñëpp ko ñàkk ñëpp ko ñàkk ñëpp ñàkk ci moom jikko yu kawe ñëpp ñàkk ci moom jullit ñëpp ñàkk ci moom tijaan ñëpp a ci moom taalibe baay ñëpp a ñàkk ci moom njabootu baay ñun ñëpp ko bokk ñàkk bon ñun ñëpp comme ñu ma wax ne Médina tey ci bés yi bésam yi gën a métti tey moom lañ ci ci lañ agsi yal nañu ko yàlla rombaleel ci jàmm te utalal ñu lu gën a kawe lu gën a baax ndax yàlla am na lu nekk jazakumullahu xayran seen teewaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر كل لدي عندك موم دينا ما يبار يو خمسة دينا mag ñu baax ji fi nekkoon muy soxna yi da koy dalee ci yaay maam Alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu maam Xadijatu Caam ba ci maam Asu Janqa nga xam ne ñooy roy royteef ci jigéen ñi Ndiol Fane yi ah, ak lu baax li nga xam ne tamit yàlla may na leen ko te lépp ñu ngi ko amee ci futteeku ànd ak góor yàlla yu mag yi waaye tamit liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la. gannaaw bi seeni doom ak seeni set ku mel ni yaa faati mi nga xam ne moo taawi Mawlana Cheikh Ibrahima di yaay daara ji ay rakam yëpp roy ko ci loolu bu fekkee ne jur na doom ju mel nii Seyda Ndey Cissé Niass Ndey Cissé wax dëgg yàlla dañuy wax ne laa xarwa ndax moom yaay la woon taxawaay bu kawe la amoon ku bëggoon mbokk ku bëggoon alxuraan la ku bëggoon baax la te ku yàlla mayoon xam-xam la tamit li ma gënoon a yéem ci moom fooy waxtaan ak moom rek dina indi tettal ci ay alxuraanul karim wala mu indi la xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa wala mu indi la waxi baay wala waxi Seydou Ali Cissé radiyallahu anhu kon tey Medina ñàkk na ku baax yàlla yàlla yërëm ko yàlla ko yàlla xaral jëna ñu ngi koy jaale ay njabootam. waaye jiital ci seedi yi wa moolaay al imam nga xam ne Adja Ndeye diwutoon magam kese waaye xaritam la woon léppam la woon ku amoon taxawaay la ci moom moom ak Cheikh Mouhamadoul Mahi waaye ay doomi boppam ku mel ni Cheikh Khalil ak baay mbay yàlla may na ko nag doom yoo xam ne doom yu baax la ndax ku yar njabootam la yar leen ci xam-xam ñu teel a wutu alxuraan ñu jàng am xam-xam waaye tamit nit mën a def jëflante ak doomu aadama yi bëgg lu li nga xam ne moom la seen maam yi bëggoon kon daal tey école bu mag leen ñàkk ci Medina di damm damm yàlla ñu ko yàlla jàngal ñu ngi koy jaare nag ki nga xam ne mooy kilifaay dëkk bi di suñ sëriñ ñun ñëpp di Cheikh Mouhamadul Mahi xaadimul umma ak mboolem waa Medina di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla ñu yàlla utal bi ñàkk te lii yàlla fi yàlla fi taamala ci barke Baay Rabbil aalamiin allahumma salli ala sayyidina wa sallim Thank you.